auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala nabiil karim sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawi ridwaani wa tamkin wal asri inna linsaana la fi xusrin illa allazina amanu wa amilu saalihaati watawaasaw bil xaqi watawaasaw bi sabri saddit lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay mbokk yi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw ba ñu leen nuyoo siwaat di dellu siwaat yéen ci émission biñ leen tànnal talaata bu ne di ci fàttaliku jaar jaari mag ñu baax ñu àndoon ak sëñ Touba tàmbale woon ko ci bu yàgg di dox ba agsi ci jëmm joo xam ne mag munu jóge kuñ ca tag nga ne sëñ Touba lim amoon lépp ci kii la yam waaye mën nañoo wax ne kon tey jii kii nga xam ne moom lañ bëgg a jël yaakaar naa ne boo ne sëñ tubaab moom dong nga ci mën a teg ci ay jikkoom ak i jëfam ak lu may yi rëy rëy rëy kii moom yaakaar naa ne li walaaf njaay naan fii la raay bi téene yaakaar naa ne ci moom la raay bi téene di leen fàttali ki leen di defal waxtaan wi Moustapha Guèye bi sëñ Moustapha Massamba waaye di soppeef sëñ Mbàkke moom maam soxna Lo Diop Taïf tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér tey roy Cheikh Abdou Lahad ci dëgg moo del siwaat ci hinde sikri saalihiina tansiilu rahma fàttali ku gaa yu baax yi yàlla nee na day tax muy wàccee yërmande ci ñun te képp koo xam ne yaa ngi taarixal mag ñi mel na ne danga leen du dundalaat te mag ñi ay rétroviseur lañ yoo xam ne ni mel ci oto xool li ci gannaaw ngir saw doxin ci kanam mën a jub moo tax mag ñi kon ñoom ñooy sunu rétroviseur mag ñooñu ñooy sunu baay ci yoon wi ndax sëñ Tuubaa waxoon ne yéen mag ñi def naa saxaaba yi ñuy seen bàyyi ci diini moo tax mag mu ci ne jéego bu saxaaba seqi seqi nga ko ba yàlla dogal nga def li nga def ci àddina mag moo ci jël nag moo tax sëñ bi li ko yàlla defal ku koy tëkkaleeg nit rek yaa ngi bokkaaleeg yàlla ndax mag mu toll ne mag ñii ñuy nettali ak kenn ku ne fi jaar ak yow ak dég-dég bi ngeen ci am ak la àndoon ak ñoom ak na leen yàlla waajale boole leen ciw askan dugal leen foo xam ne moo leen yaral boppam ba def ci ñoom xam-xam ba nga xam ne def na ko ci ñoom bañ fees dell mu door leen a jël nag boole leen ak sëñ Touba sëñ Touba nag door leen a mën a wammat ba yóbbu leen fi nga xam ne ñoom ñëpp foofu lañ doon sàkkoo dem te loolu menn mag moo xam ne si nuru nga ca sëñ Touba amul ndax mag ñii mag moo ci jël mën naa peese àddina bépp daan leen te mag ñii rawatina kii nga xam ne tey moom la ñu bëgg a nettali muy sëriñ Mouhamadou lamin Gaye ñu gën koo xam ci sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye si firdawsi jooju bu demee ba ci kanam li sababu firdawsi ji da ngeen ko xam ndax ay jikkoom la rek ak i meloom ba tax ñëpp xamee moom ko ku nekk amoon nag moom relation fexe ba am nag loo bàyyi ci moom loo xam ne si bu ëllëgee fu ñu ko tuddee tudd la kon laata ñuy ñëw ci moom ci ay jëfam liñ leen di njëkk laltaayal mooy niñ daan laltaayale mag ñu baax ñi ndax day baax nit ki booy wax ay jikkoom ba nit ñi naw ko da ngay wax aw askanam ndax askan lu am solo la ci nit ndax dana tax nit ñi xam ne kat askan bu baax mooy tax am lu baax te loolu alxuraan wax na ko wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihim boobu yi mu waxoon yor jiw bu baax def ko ci tool bu baax dana tax nga am gàncax gu baax te gàncax gu baax dana tax a yaakaar a am meññet mu baax kon noonu mooy laltaayub sëriñ Mouhamadou Lamine gay ci askanam te askan wi nag askan la woo xam ne fii ngor ak diine ak jom ak ak fayda lu baax ak ngor ak sunna sariha xaqiqa alquran lépp daje na ci askan wi kon Sëriñ Tuubaa lu baax ci Sénégal lu nekk da caa géeju moom da caa askan woowu amoon nañ ay dëkk yu ñu cosaanoo ku mel ne ku mel ne ayib njirim ak demb njirim ñoom ñaar ay frère lañ kii mooy maam yi sëriñ jëmmooy gay sëriñ Modou gay jëmmooy bi nga xam ne moo doon juróomeelu taalibe bi jébbalu woon ci sëriñ Tuubaa kii mooy maami yi sëriñ Mouhamadou Lamine gay bu Firdaws ndax euh, kii nga xam ne moom la ñuy wax sëriñ Mouhamadou Lamine gay Demba Njirim mooy maamam moo jur Magay Ndaat mi jur Demba Fatim Fall mi jur Àndala Soxna Ñang mi jur Magay Anta Gay mi jur tafsir magay awaaj gay mi jur sëriñ Mouhamadou Lamine gay mi nga xamante ne si tey moom lañ bëgg a waxtaane Cheikh Mouhamadou Lamine gay moomu nag ci ñaari waajuram yooyu mu ganee jamono mi ngi ganee jamono ci dëkk bu ñuy wax gàdd ndemba gàdd ndemba mi ngi ci wetu fi nga xamante ni sim lañu wax sàkkal nekk ci région di Louga mi ngi ganee jamono ci atum 1859 am na nag ñu mbokkal kii nga xam ne mooy tafsir magay awa jëy ñim ci bokkal mooy ku ñuy wax sëriñ moodu Karim ak ki nga xam ne moom lañuy wax soxna Faati Gay sëriñ Modou Karim Gay mii nag moom lan jébbaloon alxaaji Malick Si mu baax ma ca Tiwaawan mu jàngal ko alxuraan ba mu wattu alxuraan waaye foofa lañ ko bàyyi mu jël wérde ci maam alhaaji malik te mooy ki nga xam ne moo sëñ Mouhamadou lamin gay ñoo bokk ñaari waajur yépp moom mu bokk kër alhaaji malik sëñ Mouhamadou Lamine Gaye daal di bokk ci kër Seexul Xadim kon mel na ne loolu lu am solo la waaye sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye gàdd ndemba gi nga xamante ne sii dëkkub alxuraan la fam ganee jamono foofee fa la maam alhaaji malik si mii ngi ñu wax jànge ak ko ñuy wax Seydi Rawaan Ngom bu paal ñoom ñaar ñëpp foofu lañ jànge waaye sëñ Mouhamadou Lamine gay nag am njàngum alxuraanam fi mu ci tàmbalee nga xamante ne sii boo ko xoolee ba ci biir ci ay waajuram la jànge waajuram moo ko jàngal alxuraan gannaaw bi nag la dem ci ki nga xam ne moom la ñuy wax sa yar gay mu jàng fa alxuraan ba wattu door a fas yéene nag dugg nag ci réew mi di laxas dem di wuti xam-xam ndax mag ñi loolu lañ baaxoo gannaaw bi nag la dem fi nga xam ne moom la ñuy wax ngiig faal ngiig faal boroom xam-xam yu bari jaar nañ fa ñu baree bari jaar nañ fa ci mag ñi te yor ay daara ba mu jógee ngiig faal nag ba muy dem mook ku ñuy wax Serigne Bara Gaye Faati ñoom ñaar ñoo àndaaw gannaaw bi ba mu jógee foofu nag la dem kër maam Anta Diop ci loxo yi maam Anta Diop moom foofii nag fa la jànge lu baree bari te ba muy dem mook sëriñ Baara Gay ñoo àndoon ak ku ñuy wax sëriñ Moodu Absa Faal gannaaw bi nag la fa jóge nag dem ku ñuy wax kër xaat yi ma jaxate kala mi nga xamante ne si borom xam-xam bu mag la woon fa la wéyale am njàngam ci wàllu xam-xam nekkoon koo xam ne si ku géeju woon la ci fànn yépp gannaaw bi nag la wër réew mi di dem di sàkku xam-xam ci fépp fu mu ko mën di dégg bi mu jeexalee njàngam nag la door a ñibbi nag dëkk bu ñuy wax Kaajar Gay nga xam ne ba mu demee foofa yit bëggoon faa dëkk dafa amoon maamam ju tudd sëriñ Ayib Njirim Gay moom moo sancoon dëkk booba waxoon nañ ko ci njëlbeen ga foofa nag ba mu fa demee bëgg faa dëkk la am genn góor bu mag bu ko xamal ne ko kat su ma sañoon fii moom doo fi dëkk ba mu ko ko waxee mu ànd ak moom ca loolu gannaaw ba nag la fa daal di jóge daal di dem ci dëkk bee nga xam ne moom it maama ma ko goroon muy jëm mooy gay nga xam ne ba mu demee dafa leen wax ne leen ñëwuma fii kat ngir wane ne sama dëkku maam la dama fee bëgg a dëkk fi waaye dama fee bëgg a ñëw rek ngir diisoog yéen ak wéyal fi li nga xam ne moom laa doon def foofa maamam di ñuy wax njirim njaay moo ko sancoon waaye mook dëkk bii nga xam ne moo moom la ñuy wax Kaajar ñoom ñaar dëkk yooyu sorewuñ Demba googu Jëmmoy Gay googu ak euh, dëkk bi nga xam ne moom la wax Kaajar ñoom ñaar dëkk yooyu sorewuñ foofa nag lañu ko sancal dogal ko fa ab àll mu wut fa ay tool def fa ay kër defoon na fa daara ju tudd Kaylaan Kaylaan ak dëkk bu ñuy wax Kër Njuga ñoom ñaar dëkk yooyu yëpp sëñ Mouhamadou lamin gay moo ko moom foofee tamit ay tool la woon ku tudd sëriñ daam Kebe ak sëriñ mooduloo ak sëriñ ma Penda Seck ñoo fa nekkoon mu bàyyi woon leen fa ñu doon bay nekkoon fa ak ku ñuy wax sëriñ bay Gay ak ku ñuy wax sëriñ Yusufa Gay ak ku ñu mbooloo mu bari moo xamante ne si ñoom ñoo fa nekkoon foofee nag fa la nekk foofee it la jógee ñëw fi nga xam ne mooy Mbàkke Kajoor gannaaw bi mu déggee Seexul Xadim ñu xamal ko ne ko ku sell la kat koo xam ne ni nituk yàlla la foofee nag la jóge daal di ñëw fi nga xam ne mooy Mbàkke Kajoor wax nañ ne gannaaw wala julli takkusaan la fekk Serigne Touba di doon julli bi mu ñëwee nag mu jaayanteeg sëriñ bi Serigne Touba di ko xamal naan ko sant naa la bu baax kat Mouhamadou Lamine ci dikk gii nga dikk Serigne Mouhamadou Lamine naan ko maa ngi jéggalu ci yeex gi nga xam ne yeex na maa ñëw sëriñ bi it di ko xamal naa ko taw mësay day mën naa jiitu waaye. ngëneel ak xéewal moom mi ngi nekk ci waame la nekk sëriñ ba tib di ko xamal ne ko bi nga ñëwee ba suñ bët yi ñeentee day mënoon ngaa delluwaat te xam ne li nga doon wut lépp am nga ko gannaaw ba jaayante koo koy amee ba sëñ bi wax ko nag la daal di dil siwaat ci dëkk bi nga xam ne mooy kaylaan nga xam ne fa la defoon daala ba nga xamee ne sëriñ bi dellu siwaat na ci liggéeyu géej gi gannaaw ba nga xam ne si na ci liggéeyu géej gi amoon na dëkk bu ñuy wax kër njuga bayoon na fa ab xat bi sëñ bi nekkee ci géej gi defaroon fa nag ay xalima yu bari bi mu daggee xat bi defoon ci xalima yu bari def ci lu toll ci ñetti junni xalima def ko ci gaal yónnee ko sëriñ bi jébbal ko ko defoon ko ci gaal googu nag tëj ko ci benn néeg bi sëriñ bi nekkee ci géej gi nag ba ñibbisi sëriñ ma Lamine ñëwoon doon ko siyaara bi gannaaw ba mu nuyoog sëriñ bi ba noppi nag sëriñ bi yor seen saatu génnee ko di ko ko wan naan ko ndax xam nga saatu si mu ne ko ah nuroo naag nuroo na ko de nuroo naag saatu sa te fekk ba mu yattee xat bi ba def ko ci gaal gi di ko jébbal sëñ bi dugal ko ci néeg bi daa dugaloon saatu soosu ci biir li nga xamante ne si mooy gaal gi nga xam ne sëriñ bi waxoon na ko ne xat boobee li ma ci bind ci ay taalif bind ko ci xasida kenn xamul ni mu toll kon kooku beneen mbir la waaye mu daal di siwaat dëkk bi nga xam ne moom la ñuy wax Kaylaan gannaaw ba mu siyaaree sëriñ bi ba sëriñ bi bàyyeekoo ci réew mi dem fi nga xam ne mooy gànnaar foofa tamit sëriñ bi woolu woon na ko fa mu ànd ak sëriñ Baara Gaye Faati Mbooj bi mu agsee gànnaar foofee sëriñ bi da ko faa sancal daara jox ko ko mu di fa jàngale jàngal na foofee ñoo xamee nekk nii ñëpp ràññee nañ seen xam-xam ci réew mi te bokk na ci. ko ñi ko ci gën a ràññee ko ci taarixal sëñ Touba muy sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ak ñeneen ñu bari foofee gannaaw bi sëñ bi demee ci gànnaar sëñ Mouhamadou Lamine Guèye mii sëñ bi woolu woon na ko defal ko fa daara mu ànd ak euh, taalibeem boobu ba mu àggee it mu daal ko fay sancal daara ba jàngal ke ñooñu gannaaw bi la ko sëriñ bi andiyaat fi nga xam ne mooy Thièyène Jolof bi mu ñëwee ci na Jolof muy foofu mu nekkoon dafa ñeenti at wala juróom. 1907 ba 1912 foofee it sëñ bi da ko fa sancal daara jàngal na fa ñu baree bari gannaaw bi nag bi Serigne Touba 1912 jotee ba mu njëkk fi nga xam ne mooy njëriñ la ko fa daal di sancalaat kër ci penku jumaa ji nga xam ne gan boo defoon na fa sax ay ron yu bari wax nañ ne kër ga sax dafa mujjoon gent gannaaw bi nag Serigne Touba yoon yóbbu ko tuubaa ne ko boo demee nga sanc fa kër muy foofu yi ngelaw mu nekk muy ci ndaamaatu mu sanc fa nag kër def ko daara ñu bari ci njabootu sëñ bi. ak njabootuk mbokkam yi jàngal na leen fa ndax jàngal na fa ku ñuy wax sëñ Abdou Khoudous moom maam Thierno jàngal na fa sëñ Modou Fati Xari moom ma Massamba jàngal na fa sëñ Abdourahmane Mbacke ak sëriñ seex Fati Fall Mbacke ak ku ñuy wax sëriñ Abdoulahi Jaxate ak ko ñuy wax sëriñ Modou Xabbaan ak ko ñuy wax sëñ Abibu Mbacke ak ñu baree baree bare gannaaw bi nag la daal di fay jóge dem sañ ci ca wetu Daarul Muuti ci mbokkam moomee muy maam Thierno Ibra Fati nga xam ne soppeem la woon mu jox ko fa ay ab àll mu daal di fay sanc kat tudde ko daarul xayri nga xam ne moom la ñuy wax Touba Gaye ba mu koy sanc it Serigne Makumba Fall la fa àndaloon waaye am na ku tudd Baye Cheikh Fall ak Mouhamadou lamin gay ak ku ñuy wax Serigne Jabel faal ñoom la fa àndoon gannaaw bi nag la dem ci atum 1929 gannaaw bi fi sëñ bi jógee ba ca déwén sa maam Thierno daggalaat ko foofu ci wetu Touba Belal ab barab mu tudde ko firdaws moo tax sëñ Mouhamadou Lamine Gaye firdaws yi turu dëkkam boobu moom lañ koy màndargaal gannaaw bi it sañcaan na dëkk bu ñuy wax Minatul Oliya ci nekk ci wetu Taïf ay 2 kilomètres distance gannaaw bi mu demaat sañcaat ca wet ga dëkk bu ñuy wax Bosra moom it ci wetu Taïf ay diggam ak dënk moom tamit lu toll ci ay 2 kilomètres yooyu la waaye Serigne Modou Aram Gaye moom la ko joxoon. sancaat na fi dëkk bu tudd allahuma sëlli ak beneen dëkk bu tudd si salaam mi ngi ci wetu waraat moo dëkkaloon fa sëriñ Modou Aram gay mu sanc it dëkk bu ñuy wax jilaan gay mi ngi ci wetu jëmmoy ñim àndaloon nag sanc yi ci dëkk yooyu ñooy ñii may bëgg a lim muy sëriñ Makhtar Fall ak sëriñ Aliou Kane ak sëriñ Mbay Fall ak sëriñ Mor Marema ak sëriñ Mbay Faati Fall ak sëriñ Mbay Fall Kane ak sëriñ moodu Lamine Gaye ak ku ñuy wax Masayar Kan ak ku ñuy wax sëriñ Moustapha Kan ak ku ñuy wax sëriñ Baara Aminta Yàlla ak ku ñuy wax sëriñ Modou sekk waaye nag euh, moom la ñuy wax sëriñ Modou Seck Juma ak ku ñu wax sëriñ Bay gay ak ku ñuy wax sëriñ Mor Kala ak ku ñuy wax sëriñ Bay Sey ak ku ñuy wax sëriñ Baara Soxna Gaye ñooñu kon ñoom la àndaloon ci dëkk yi nga xam ne sancoon na ko moom nag yàlla dogal na amoon nag njaboot mu am ko ci soxna yi nga xam ne ñoom lañ di bëgg a limal yoroon na ku ñuy wax soxna Amintu Sëy am ci ku ñuy wax sëriñ Mor Jaara Gay di ab taawam mu tuddee woon ko sëñ Maam Mor Jaara ak ku ñuy wax sëriñ Alamin Gay mi nga xam ne nekkoon na xalifaam te yàlla dogal it moom it mu liggéey liggéey bu am solo ci li nga xamante ne sii mooy euh, liggéeyub sëriñ Mouhamadou Lamine Gay moom it di waajuram sëriñ Mouhamadou Lamine Gay it yoroon na ku ñuy wax soxna Fati Gay am ca ku ñuy wax soxna Safi Gay ak sëriñ Mañaaw Gay ak ku ñuy wax soxna Nafi Gaye aw yoroon na it ku ñuy wax soxna Fatim Mbodj gay am ci ku ñuy wax soxna Cerno Sëriñ Cerno Gaye ak ku ñuy wax soxna jëmm Gaye waaye yoroon na ku ñuy wax it soxna Mbène gay am ci ñuy wax soxna Aminta Gaye ak Sëriñ Fadilu gay ak ku ñuy wax Sëriñ Basiru Gaye yoroon na tamit ku ñuy wax soxna Mariama Jaañ am ci ku ñuy wax soxna Mbàkke gay waaye tamit yoroon na ku ñuy wax soxna Asan gay am ci ku ñuy wax soxna Maymuna Gaye waaye am na ku ñuy wax sëriñ ma Samba Aminta Diop joxoon na ko doomam ji ñuy wax soxna Aminta Gay bi mu dem kër mu am ca ñuy wax sëriñ Fallu Diop ak ku ñuy wax sëriñ Modou Aram Diop ak ku ñuy wax soxna Loota Diop waaye suñ Murtada Mbàkke Xaadimu Rasuul joxoon na doomam ju ñuy wax soxna Loota Diop nga xam ne ci la am sëñ Saaliwu Mbàkke ak ku ñuy wax soxna maam Faati Mbàkke waaye ku ñuy wax sëriñ Masamba Asta Diop it yoroon na doomam ju ñuy wax soxna Aminta Gay am ci soxna astu maam jóob ak ku ñuy wax soxna Xadi Diop ak ku ñuy wax sëriñ Massamba Diop ak ku ñuy wax soxna Astu Matar Diop ak ku ñuy wax sëriñ Xaadim Diop waaye ku ñuy wax sëriñ Moodu Aram Gaye muy mbokkam moomu yoroon na doom ñuy wax soxna Mbàkke Gaye waaye amu ci woon benn bant yàlla dogal ñu joxaat ko soxna Safi Gaye moo am ci sëriñ Moodu Gaye ak ku ñuy wax soxna Mbeen Gaye ak ku ñuy wax sëriñ Jëmmoy Gaye ak ku ñuy wax soxna Anta Gaye waaye am na it ku ñuy wax alxaaji Seex Jéey joxoon na ko doomam ju ñuy wax soxna Jëmmu Gaye mu am ca soxna Ndey Jéy ak sëriñ Moodu Jéy ak sëriñ Fadilu Jéy ak soxna Loota Jéy ak sëriñ Mbàkke e, Jéy kon ñooñu bokk na ci ñenn ci ay soxnaam ak ñi nga xamante ne sii ak njabootam la mu amoon nag e, ay relation gannaaw bi mu jàllee ci parcour yooyu relation yu mu amoon amoon na ko ak njabootu sëñ Tuubaa gannaaw bi nga xamee ne ànd naag sëriñ tubaa ci loolu sëriñ tubaa féetale woon ko am njàng féetale woon ko lépp loo xamee ne que nii moom moo fa waroon a dekkal boppam te wóolu ko ci ci dëkk yi nga xam ne tuddal nañ leen ko ak barab yi ak ñim daan teg ci loxoom depuis ca gànnaar ak dëkk yii mu sancoon ci ndigalam ak yi ko maam na jox ak yi nga xam ne sancoon na ko ci wetu diggante Bayla wala diggante dënk yi ak it fi nga xam ne mooy wetu Taïf muy dëkk yooyu ñu leen tuddaloon foofu fépp la mu daan def weesuwu ci lu dul la neex suñu borom relation yi mu am nag gannaaw bi nga xam ne Cheikhul Khadim jóge na fi dafa dem ci ab taawam foofa la joxe boppam waaye taawam boobu mu joxoon boppam it muy Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké ganese woon na ko ci dëkkam bi nga xam ne moom la ñuy wax Kaajar Kaajar googu sëñ Mamadou Moustapha ganese na ko fa def fa ay fan digganteem ak ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Fadal Mbacké it amoon na relation bu am solo ndax tudde na ko doom tudde na ko doom muy sëriñ Fallou gay waaye tudd na soxna Awa Bousso it waajuru sëriñ Fallou doom Cheikh Mamadou Fadal tamit ganasi na ko ci dëkk boobu ñuy wax Kajoor nga xam ne magam ja demoon na fa Cheikh Mamadou Moustapha digganteem ak Cheikh Mamadou Bachir diggante la bu yaatu la woon te it cosaan la mi ngi topp mi ngi sosoo ci sëriñ Mbay Jaxate ndax sëriñ Mbay Jaxate mii sëriñ Touba da koo jëloon jox ko sëriñ Malamine gay mu di ko jàngal xam-xam waaye sëñ bay Jaxate moom it sëñ tubaa dafa jëloon sëñ Basiru jox ko ko mu ànd ak moom dem ci dëkk bañ ñuy wax Kaylaan nga xam ne fa la defoon daara doon fa jàngal ñii ma lay wax nga xam ne nag Kaylaan googu sax boo demee da nga fa fekk genn guy goo xam ne sëriñ ma Lamine Gay moo ko tudde woon sëriñ Basiru doomi sëriñ Tuubaa ba guy ga wax nañ ne boo demee da nga ko fa fekk relation bi nga xam ne amoon na ko ak Cheikh Abdoul Ahad liy firnde mooy fii sëñ Sohay bu dëkk tey muy sëñ Sohay bu Mbàkke sëñ Mouhamadou Lamine gay moo ko moomoon waaye moo taxit sëriñ Abdou jot ci ndax sëñ Abdou Lahad da ko mas seet si bi mu dikkee mu ne ko kër gi kat laa soxla woon mu ne ko kër gi de boo ko soxlaa danaa la teg ci aw yoon woo xam ne sii soo ko wëccul da ci jot ci kër gi te booba moom moo ko moomal boppam ne ko demal nga laaj ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bala ngaa dem nag ca moom danaa ko jébbal kër gi nga xam ne ba mu demee kër geewgee ba mu ba mu ko yoree te sëñ Abdou Lahad ñëwagu fi mu ngi fa dëkkaloon ñaar ñoo xam ne si ñoo doon jëw ni ñoo ko doon wattu muy sëriñ sayaat kan ak Baye sëriñ euh, euh, kan ñoom ñaar ñoom ñoo ñoom la ko joxoon dénkoon leen ko ba nii mu ko joxee ki nga xam ne mooy Cheikh Abdou Lahad sëriñ Saliou mbàkke tamit euh, ku ko fonkoon la fonkoon na sëñ ma Lamine gay lool ba joxoon na njabootog sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye suuf su yaatu ci Touba nga xam ne ñu ngi ko tuddee woon Firdawsi nga xam ne relation boobu ni la ko amee woon ak njabootu sëñ Touba gépp ku góor ak ku jigéen xajjale ci woon kenn waaye nay njabootu sëriñ Touba amoon na relation ak maam Thierno Ibrahima Fatim ndaw waxoon nañ leen ne leen tuddee na ko doom sëñ Thierno Gaye am na maam Thierno moo ko joxoon suuf soosu mu tuddee ko Daarul Xayri te mooy dëkk bi ñuy wax Touba Gaye moo ko joxoon it seeneen suuf si wetu belal mu tuddee ko Firdawsi noonu mu ko amee woon ak euh, maam Thierno. ni la ko amee woon nag cheikh si mu dajaloon ci sëñ Touba bokk na ci sëñ Abdourahman Lo ñoom ñaar fekkante nañ ngiig faal doon fa jàng xam-xam bokk nañ it ci keppaar sëñ Touba muy Mbàkke Kajoor bokk nañ fa nekk sëriñ Mandumbe Mbàkke mii tamit jaxasoo woon nañ lool sëriñ Mbàkke so tamit gis nga ne moom it jaxasoo woon nañ lool nga xamante ni si ñoom i tamit ñoo bokk daanaka aw yoon wu nu jaar ci ni ñu àndee ci sëñ bi waaye bokk na ci ki ñuy wax sëñ Baara gay moom i tamit euh, sëñ Baara Faati Mbooj sëñ Baara Faati nga xam ne moom ba muy dem gànnaar ak dëkk yu bari moom la ci loxoom la ko tegoon te moom it ay bokk lañu bokk na ci ku ñuy wax sëñ Baara Xarifaal tamit te ñoom it jaxasoo woon nañ nga xam ne sëñ Touba daan wax na ay sama ñetti baara yi nga xam ne baara yooyu yëpp kenn ku nekk am nga jeexatal ci dundu sëñ Touba bokk na ci ku ñuy wax sëñ Balla Awa Njuga moom i tamit nga xam ne. dar moom foofu moom mi ngi nekkoon ci wetu daarul wala daarul moxti la nekkoon boog bokk na ci ko ñu wax sëriñ Modou Fati Ali moom itamit amoon nañ jaxasoo lool bokk na ci ku ñu wax sëñ Modou Guèye jëm moom ñoo bokk maam yéen ñaari maamam ñoo bokk lépp waaye bokk na ci ko ñu wax sëñ Modou Baara tamit moom Cheikh Mamadou Lamine Ba sëñ Modou Baara sax gane si woon na ko si googu waaye wax naan ko sa dikk gii ci yoonu murid day na nga xamante si am na solo lool. ndam la ci yoon wi ndam la ci lislaam te gis ku mel na yow moom àddina dutu ko indi ba mukk kon kooku mooy ki nga xam ne mooy cheikh Mouhamadou lamin gay doon ab sunni doon ab suufi mboolem lu yàlla digle ci xam-xam ci jàng ko ak jëfe ko sëñ Mouhamadou Lamine gay da ko remplir jeex tàkk ci yàlla bu nu demee ci deuxième partie bi bu ñuy indi ni doon dunde sunna ak fam ko tegoon ak wéetal yàlla ak am xam-xam di ko jëfandikoo dangeen xam ne sëñ Touba du nit kon mën naa ne sëñ Touba bu doon ñaari jëmm la jenn ji mooy xaadim rasul jenn ji mooy sëñ Mouhamadou Lamine Gaye si te lii may wax ñëpp xam nañ ko ndax nekk ci àddina di dund sunna ba lenn bànneex mosoo ko jege nga xam ne wax nañ ne am mbaam la yoroon mu weex moom la daan war tudde ko Seydul Ximaar dem na ci Taayif seet ci ma Modou Sa dem na ci Dëru Muti gana ci maam Thierno bañ xalaatoon sax jox ko aw fas woo xam ne sii moom la ci war a war waaye mu xamal leen ni leen kat ku boole woon ndarak la ca aju ak ni mu toll ci dayoo lépp ci alal jox ko ko muy kilifa géet na ngeen xam ne xameewu ko tëdd ci gàll jël ko di ko yor ci biir bàmmeel kon kooka moom àddina taxu ko woon a jóg noonu yi mu amee woonam njàng amee ko diine ni la amee woon ak taalu bi ni la amee woon ci jëpp jenn jikko jëpp bépp jikko boo xam ne mooy tax nga am makaarimal axlaaq sëñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi yàlla dogal na moom ma amoon na ko kon sëñ Touba boo ko nattoon ci sëñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi ak képp kuñ koy tëkkal leen bu jëloon sëñ Mouhamadou Lamine Gueye jël ñu jël kookee ñu koy tëkkalal teg sëñ Mouhamadou Lamine gay dana ko dana ko wat ni une tonne di wate 2 kilos ni une tonne di wate 2 kilos boo leen tegoon ci balaas noonu la ko sëñ Mouhamadou Lamine Gueye di eh, eh, si di wate te téewul loolee mu am la muy rëy rëy rëy rëy rëy la koy mottali ba loola mën a jag mooy fa wajada habdan min xibaadina wa ataynaahu rahmatan min hindana loolee muy fekk jaam boo xam ne si yàlla moo def ci moom ay ngëneel def ci moom xéewal xamal ko loo xamee ne que nii xamalu ko ko ci ay téere mu xamal ko ko loo xam ne si ci moom la coobare léegi nag nga dem ànd ak moom ànd ak moom di liggéey mu wàccee ci yow yërmande loola am jàng kese du ko may waaye jumtukaay yi nga xam ne nii lépp lu yàlla digg ci kuy jàng jëfe fekkoon na señ Mahamadou Lamine Gaye am ko ba pare ñëw nag amug woyof ñëw gis nangu dagalob yàlla ci sëñ Tuubaa ñëw ànd ak moom mot li mboolem li nga xamante ne si moo ko manqué woon ngir mu mën a complété loola am na ko ci sëñ Tuubaa kon ñoom mag ñi bi ñu ànd ak sëñ Tuubaa bànneex taxul woon ñu ànd a moom ndax ba ne jaayante jafe na ub sa kër dem ànd ak koo xam ne ki danaan la yàlla nee na yónente nee na nga am say jumtukaay yi nga ko mën a natt yépp ba xam kii li muy wax tegu na ci siraatul mustaqim wala tegul ci siraatul mustaqim ñu natt ko ci xam-xam yañ am te boo doon nax danga naan kenn nga mën a nax waaye mënoo nax ñaar mënoo nax ñett ndax yoon wuñ ne sëñ Adama Gueye jëkk a jébbu la te gannaaw ba mu laajee sëñ bi yoon wi fu mu jëm sëñ Ibrahima Sarr Njaañ topp ci sëñ Masamba Diop Sam topp ci kii nga xam ne mooy sëñ Abdourahmane Lo topp ci kii nga xam ne sëñ Modou Gueye Jamoy topp ci kii nga xam ne sëñ Asdor Assane Ndiaye topp ci kii nga xamante ne si sëñ Mbàkke bu sa topp ji kii nga xam ne sëñ Mandumbee topp kii nga xam ne sëñ Moodu Njaay tàggar topp ji yoon woowee yaakaar naa ne xam nañ ne yoon wu jub la moo tax ñoom li tax ñu am li ñu am ci àddina danoo nangu dogalub yàlla ci sëñ Tuubaa ndax ña ko déggoon te toog jóg dem ñooña Bàmba suuxal na leen ñi ko déggoon te toog ñooña Bàmba seexal na leen ña ko déggoon di dem tey jii mooy ñoo am jafe-jafe àddina waaye ña ko déggoon te toog la matoon a am lépp am nañ ko te mag ñi lañ daan wax da daan dëgg ci ñoom ndax moom mii di sëñ moomu Lamine Gueye waxoon naa li sëñ Daaru Asan Njaay de moom laa mas a dégg ci ku jiite sëñ Touba waaye moom mi noddal na sëñ Touba liqaamal na ko ba tey tey moom sëñ Touba mosu koo soññ ci dara sëñ Touba waxtu bu gisee sëñ Mouhamadou Lamine Gueye da day gën a yéemu ci moom ak di ko gën a ñaaxa ak di ko wax ne ko yow de nii ngay dundee tasawuf ak di ko dundee li nga xam ne mooy sunna bu ko ñépp defoon jàppoon naa ne boo liggéey kenn du taxaw kenn ndax bokk na ci li nga xam ne dana ñëw ci ñaareelu paas bi bés bi ko sëriñ Touba woowee ndax moom dafa waxoon ne Mouhamadou Lamine gay de ab dëkkuwaayam sunna la ko sance ñagge ko sariya képp ku ko ñàgge nag na nga xam ne joteewoog Mouhamadou Lamine Gueye dara ba amoon yalwaankat bu dikkoon ci buntu këram bi weeru koor dikk yalwaan naan képp ko woor wor nga képp ko woor wor nga ba mu dégg ko aalu dikk ne ko yow foo dëkk mu ne ko war a sàngam noo tudd mu ne ko ba diw mu ne ko na nga xam ne xaw ma àjjana jooy dugg waaye du àjjana yi suñu borom ji loola xam ngeen ne ku dund tasawuf dund sunna lim ne woon sanc naa sama dëkk sunna ñagee ko sariya loolu amu ci woon kum ciy rus wala koo xam ne si da ciy maslaa ak yow bi ko sëñ Tuubaa woo njëriñ woo see Ibra Fall ñu ñëw ñoom ñett ñu toog waaye lan la ko laaj Mouhamadou Lamine lan mooy ak taalibe bi sëñ Tuubaa ko ko laaj lan mooy ak taalibe bi mu ne ko dangay jeex tàkk ci sa borom door a jeex ci sa sëriñ mu ne ko Mouhamadou Lamine ndax su ma la tere woon ne la bàyyil julli ndax da ko bax lu am importance nga ko mu ne ko ku digle julli mu ne ko yàlla mu ne ko dala koo digal mu ne ko waaw mu ne ko digal ma ko mu ne waaw mu ne nga di ko def mu ne waaw mu ne ko ma di ko def mu ne waaw mu ne ko li ma lay bëgg bëgg ba amatul lu ma ci mën a dolli soo ma ko santoon du ma ko bàyyi léegi nag dangay xool sëñ Tuubaa boole ñoo xam ne sii bokkuñu yoon wu nu jaar mu dajale ñoom ñëpp ci génn bu ndax bi mu laaj sëñ Daaru Asan Njaay ne ko wala soxna Fat ja wax nañ ne laaj na sëñ Daaru Asan Njaay ci julli gu bare gi mu daan dikk na ko ndax bu la sëñ Tuubaa aaye woon ne la bàyyil julli ndax da nga ko bàyyi mu ne ko waxuma la julli waaye penk duutuma ko jublu te xoolal sëñ Darou Assane Ndiaye mu laaj sëñ ma Gaye ne ko ndax su ma la aaye woon julli da ko bàyyi mu ne ko ku la ko digal mu ne ko yàlla mu ko def mu mu ne ko ku ma ko digal mu ne ko yàlla ma di ko def mu ne ko waaw mu ne ko li ma lay bëgg-bëgg ba mënatuma am lenn lu ma ci bokk soo ma ko terewoon donc mu ne ko Malamine lii nga def de bu ko ñëpp defoon na la wóor na bu ëllëgee kenn du sonal kenn kon kooku tasawuf bu am solo boo xam ne si amu ci woon ku muy làq-làqal amu ci woon ku muy maslal te ci kanamu sëñ Tuubaa la doon defee li muy def kon kooka yàlla képp képp képp moo ko ñor ku ko topp gëstu ay mbiram topp ci ay ay ay ay waawam incha allah doo fakkatalu doo sonn doo jaaxle tey doo waru bokk na ci nag keroog bi nga xamee ne jóge na fi 1941 boobu nga xam ne wax nañ ne jaar na Taïf yor am mbaam mu weex ba ñëw ci sëñ Modou Moustapha nuyu ko xamal ko ne ko aw sagar sagar kat day jegeb sën mel na lu ko tàggu ba nu tàggatoo ba mu dikk nag ci dëkk. bi nga xamante ne si fi la wàcc liggéey fan yu néew lañ ca teg mu wàcc liggéey ci 1941 yaakaar naa bu ma juumul fukki fan ak lu topp ci weeru baraxlu ci la génn àddina yamook mois de septembre 1941 sëriñ ma sàmma Mbàkke it moom lañ digal ne ko demal mu jullee ko ay xalifaam it nii la tëddee sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi gannaaw bi mu génnee àddina 1941 ki ko fi jëkk a wóotu mooy kam tuddee woon sëñ Maam Mor Diarra Gaye nga xam ne moo ko fi wutu 1941 ba 1970 waaye ba mu fi jógee moom tamit sëñ Maam Mor Diarra Gaye moomu 1970 ba 1000 ba 2004 sëriñ Alamine Gaye moom moo ko fi wutu 1970 ba 2004 Alamine Gaye menn mi nga xam ne moom ku baax la woon 2004 ba ci biir 2004 bi nga xam ne mën naa ne ay weer la sëñ Mañaaw gay moo ko fi wut 2004 nag ba nga xamee ne moom génn na àddina la sët yi tàmbali nag ñëw di ko fi wut sët yi nag ki ko ci jëkk wutu mooy sëriñ Xaadim Gay doomi sëriñ Maam Moor Jaara Gay kon première partie bi foofu lañ ci taxaw di ñaanal njabootu ki nga xamante ne si mooy sëñ Mouhamadou Lamine Gay yàlla dolli leen ay ngëneel ña jiitu ji yàlla leen yàlla taas ci ci seen barke mu taas ñu ko gën a leeral seeni bàmmeel gën fee yàggaloog njabootam muy taalibeem yi nga xam ne ay ñayi xare lañ lu waay di xëccoog ñoom ku nekk bu ñu taxawul danañ la gañe di nuyu au sëñ Xaadim gay moom sëriñ Moustapha Gaye nekkoon fii ci réew mi yàlla dogal muy ko baax nekk bëkk néeg yi gën a kawe ci liggéeyal sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Mbacke Mouhamad nga xam ne ràññeeku na ci ñun dañ koo xam njëkk Euh, lii nga xam ne féete woon na ko ci Sénégal di ko def kon nag ñu ngi koy siyaara di siyaare mboolem ñi ngi sant Guèye ñëpp te bokk ci njabootu sëñ mu Lamine Guèye nga xam ne ñii moom ay nit lañ yoo xam ne si ku ñu jaayanteeg télé bi boo faywul danañ la gañe te jox nañ seen bokk lépp sëñ Tuubaa jox nañ ko seen alal jox ko seen bakkan jox ko seen njaboot jox ko seen lépp kon ñu ngi taxaw foofu incha allah di ñëw ci deuxième partie bi ci melo yi Serigne Mouhamadou Lamine Guèye Firdawsi ci ndénkaane yi mu daan dénkaane nga xam ne ay xikma la yoo xam ne murit yëpp a ci mën a gis seen bopp jullit yëpp ci mën a gis seen bopp yàlla na nu yàlla taas ci barkeem ak njabootam ak ñi nga xam ne ñooy ay xalifaam te ay sëtam nekk fi ak lu baax li mu daan def lépp yàlla na ko yàlla def ay waame yoo xam ne si nam ko ko waxee woon rek ne taw monsieur de mooy jiitu waaye ngëneel ak xéewal ci waame lay nekk te waame yooyu nag mooy keroog bi mu ñëwee jébbalu ba sëñ Tuubaa ne ko suñ ñeent bët yi ba mu nee jàkk rek nga amoon ngërëm yow mënoon ngaa delluwaat fa nga nekk liggéeyal yàlla fi sëñ Tuubaa liggéey bu rëy ci kanamam ak gannaawam kon ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen numéro in nuridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh